top c'est parti Europe ñoo ko 4 avril dem nañu Paris toj dog de Pullman 8000 places Pape Diouf et la génération consciente dudul jeex waa Europe nous nañu déedéet Pape Diouf day dellu soit muy faj Angleterre kañ la le 21 ak le 22 ñi ngi Birmingham ñi ngi London ku fay dem Pape Diouf et la génération française. Pape Diouf looy yóbbante waa London waaw xanaa di leen wax rek ne pare Nous ñu ngi ñëw ku doon laajte faali ngooy gi comme ni ma ko waxee ci sport bi Euh, London nak xam nga deug la bo xamne ne xol xool histoire musique dañ ci am patch bu maga maga mag a ndax euh, sunu papa yi sunu mag yi jaar nañ fa def fa ay jaloré donc ñun aussi ñu euh war fa jaar donc jaaroon nañ fa jaarat fa jaarat fa waye bi nak jaar bi dafa exceptionnel parce que Rakaju euh, dañ ko def Sénégal xalé Rakaju ñu dem Paris Pullman wax deug yalla sénégalais yi jóge fu nek ci aduna bi ñew mu nekkon événement bo xamné c'est bu mag la donc waa London nag fi mu ne affaire bi défilé Tange parce que nee Paris duñ leen ko yobbu moy ci ambiance di ci sañse di ci bége waaw parce que nee nañ la London série Gambien yi dañoo mën a sénégalais yi ne leen danam donc euh, Pape Diouf sa diggante Gambien kenn du ko werante tey spectacle show ambiance war na am ca biir Angleterre gis nañu la nga defoon Paris ñoom ñëpp ñu ñëw fekk si la teewul ñu doy la en moins de un mois nga war delluwaat Europe ñu ngi gis sawet Mbakane sekk jëri jëri ku ne Mbakane wax London am na lu ñu fa war a Mbakane bés boobu lu mu nar a mel. waa non bës boobu nag moom bës bu rëy euh, xam nga bës boroom rek lay tolloo euh, comme li may wax sama zéro bi nag moom ñëpp xam nañ ko ci mën bés. donc mën bësam nag moom da koy ànd ak taalibe donc ba nga xam ne ne que moom nee na léegi waa Birmingham ak Londres mais li ko wër dafa bari ndax macha allah taalibe Maulana Seexul Islam yi ngi koy pare soo ne maam Baye rek danga nga naan Londres waa Manchester gaa yi ngi koy pare nga dem ba fële ca Birmingham ak li ko wër ñoom ñëpp ñu ngi pare bés boobu nga xam ne ne que mooy vingt 22 ak le 23. donc mu nekk bés boo xam ne nag dafa am lu leen pap beral loxo loo xam ne ne buggoon nañ ko def Paris mais temps wu répertoire bañ amoon dafa xatoon gars yi kontaan nañ mais moom la mu bëggoon a def defu ko woon te bi muy jógee Londres jóge na fa ak jóge boo xam ne bi mu fay laas jógee nekkul lu ko gënal donc moo tax lépp lu mu mënoon a def ak lépp lu mu amoon xam-xam ci baatam ak ñi ci ginnaawam di ko dal bu neexee yàlla suñuy excès rek dinañ xam ne naka gars yi excès nañ. Bakar mën nañu xam ñaata sabar nga fort pour London ndaxte Angleterre kat dañoo pare te Pape Diouf wax nee na défi la wax ji ngay wax dafa sedd te waa Angleterre nañ bu dara sedd. lu yëngatu la ñu soxla non wax ji moom xam nga wax moom ñun moom xam nga ne ku ñu xam xam nga ne bés rek lañ mën. ndeysaan am na parti boo xam ne ne xam nga Londres mosuñoo gis Pape Diouf tëgg am na bin am na mbax am na taj am na taar. na góore gars yi wax nañ ko. danga am say nit dama bëgg nga woo dama bëgg da nga am say nit dama bëgg nga man ngay waxal caméra tool yi temps xam nga samay nit foofu macha allah dañoo bari. Pape xam na am na lu mu ci xam. Mhm. Fama Sow maa ngi koy woo. ndeysaan maa ngi woo Awa Sow. sunu géer maa ngi woo Waka Diagne. London maa ngi woo Ndiog Malick. ndeysaan maa ngi woo promoteur bépp promoteur bu nekk Londres. ndeysaan ñu ngi lay woo ne leen seen frère Pape Diouf mu ngi egsi nak bu nexé yalla suñ fa dinañ xam que gars un sama sœur Aram gis nga mom néna ko sax bi la gis nga ndax dafa bëgg ma. sa dëkk say dañ fa doomu Afrique Afrique. Mhm. Yaya Touré. Mhm. ak Pape Diouf kenn ko Sénégal doomu Sénégal ñu fa di défendre drapeau Sénégal muy Papis Demba Cissé Diouf lay wax ak ci li ko njëkkee ci suma frère El Hadj Ousseynou Diouf nga xam ne saa yi ma ko fekkee London lépp lu mu bàyyi jàpp da koy bàyyi ñëw fekk si ma di ma sagal di ma toppatoo muy nit ku baax ku ma respecté suma frère Yaya Touré sama relation ak moom kenn natat leetu ko bërki dem rek la fi jabaram jaar seet si suma doom moom ne defe ay teraanga yu bari ku mel nii euh, Diagne Faye chéri Dadi moom it ca Manchester City maa ngi koy woo ku mel ni Jafra Sakho maa ngi koy woo Papis Demba Cissé suma rakk maa ngi koy woo Mame Biram Diouf maa ngi koy woo euh, Jamme maa ngi koy woo maa ngi woo sénégalais yëpp ñu fa nekk Cheikh Kouyaté Sadio Mané xam nga c'est le Sénégal qui gagne Sénégal Gambie ñoo bokk ndey ak baay ndox mi donga ñu xaajale Gambien yi ñu ngi leen di wax ne leen xaar leen ñu ngi ñëw ñoom Ansoumane ñoom Ansoumane Soul ñëpp ñu comprendre nga donc waaw kenn du des. kenn du des waaw Sadio le promoteur vraiment Ndiog Malik Dudu Mbodj waa London Dudu Mbodj. bés bi daal sama gars yi seen bésal. waaw dinañu woy ba xotteeku bu soobee yàlla. bàkk bàkk bu bees nag. Pape Diouf rendez-vous. le 20 le 22 Birmingham. le 23 23 London London City. ku ko fekkeewul. ah gisuma la mbaa. ñetti woy yu bees yi ngay woy dégg n'a ni. da nga koy. <laughs> falaa koy dóore adduna bi jarul ñaaw bilaay yéen a nekk la borom ma cay fanaan <laughs>